ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokk taalibe yi rawete nañu ñuy topp ci chaîne bu mag bi di Mouride TV HD commencé ci sëñ bi yem ci sëñ bi ñoo ngi leen di nuyoo fii ci Pikine ànd ak daara Matlabul Fawzayni bu Touba Pikine cité police ci cant bu mag yi ñuy amal at mu nekk ci ko def ci ndigalal Cheikh Modou Mountakha tey ji di deuxième édition bi wax cant nag wax jàng alxuraan jàng xasaayit bernde mbokki taalibe yi bi ñu xëyee tey ji ñoonu nga leen gisee ci image yi xëy nañ ubbee bis bi njàngum alxuraan noonu ngeen gisee mbokki taalibe yi ñu ngi tiim kaamil bi di fësal seen yéene ci ci alxuraan ji noonu rek lañ ko fas yéene toppe ak yéen lépp loo xamante ne bi mballe na fi rek ci njàngum alxuraan njàngum xasaayit waxtaan a xamante ne bii rek mooy taaral bi dinañ leen ko topp mustaqir فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر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 bismillahi rahmaani rahiim alif laam miim saalikul kitaab laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin qul huwa allaahu ahad allaahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq wa min sharri xaasidin izaa waqab wa min sharri nafaasaati fil uqad wa min sharri xaasidin izaa xasad qul a'uuzu bi rabbin naas malikin naas ilaahin naas min sharri waswaasil xannaas allazii yuwaswisu fii suduurin naas minal jinnati wan naas bismillahi rahmaani rahiim sadaqallaahu al-aziim wa ballaqa nabi wa ballaqa rasuluhu nabi almustafa alkarim wa nahnu ala ma xala rabbuna wa mawlana min alshahidin allahuma irhamna bilquran alkarim wanfana bilayati wa zikri alhakim waj'alhu lana hujjatan yawm addin allahuma infana bima sirta fihi min alayat wa zakkirna bima darabta fihi min almazullat wa kafir bitilawati anna sayiati innaka mujibu da'awat اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من شهو أو نسيان aw taxrifin aw taqdimin aw taxirin aw ziyadatin aw nuqsanin aw tawilin ala xayri ma ansaltuhu aw taajilin inda tilawatihi aw kasalin aw sayqi lisan aw wuqufun bi xayri waqfi aw waqufun bi xayri waqfi aw idgamin bi xayri mudgam aw izharin bi xayri bayan faktub minna ala tamami walkamali walmuhasabi min kulli alxaan warsuqna fadla man xara'ahu muaddiyan aqahu maa al aadai walxalbi wallisaan وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا منا من خفلة والكسلان وعمنا من أصحاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيت وجوهنا يوم وبيت وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميساننا بأسنا وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا في وسط الجنان warsuqna jiwaara saydina muhammadin alayhi salaatu wa salaam wakrimna bi liqaayika yaa dayyaanu allahumma ij'al alqur'aan al'aziima rabii'a quluubinaa wa jalaa'a ahsaaninaa wa sahaaba qumuuminaa wa qaa'idanaa wa saa'iqanaa ilaa jannati na'iim allahumma ij'al aniisanaa fil wahsaa wa musaahibanaa fil wahdaa wa misbaahanaa fi sulmati wa daliilanaa fil xayrati wa munqisanaa fil fitnati واعصمنا به من سيق الأهواء وكاد الأهداء يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم أختم بسعادة آجالنا وحقق بسعادة آمالنا وقرن بالعافية خدونا وإزالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واصبب سجال عافيك على سنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك صغرانا واختخادنا وأمن من الجهو والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما أقررناه wa nuura maa talawna li ruuhi sayyidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu wa salaam addiyatun xaalisa mutawasila ila ruuhi soxna maam jaara buso addiyatun mutawasila ila ruuhi soxna jaara buso addiyatun xaalisa mutawasila ila ruuhi soxna jaara buso wa li arwaahi aabaa'ihi wa ummahaatihi wa azwaajihi wa suriyaatihi wa ashaabihi ridwanullahi taala alayhim ajmain wa li arwaahi aabaa'ina wa ummahaatina wa masaaqina wala arwaahi jamii al muslimin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin xaatimi nabiina wa imaami al mursalin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mustaqir فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء يا الله منك أطلب الإيمان بالبر والإسلام وإحسانا يا الله يا مقلب القلوب خلب قلوبنا عن العيوب وهب لنا الإرساء على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات topp yàlla gën a jafe yàlla na ko suñu borom xiir ci ñun ñu mën ko koo defal mooy yàlla ko yom yàlla yàlla na ko jafe ci suñu xol yi bu dina ko def rabbana atina fi dunya hasanatan fi l axirati hasana wa qina asaba annar rabbana laa tuzigh quluubanaa ba'da idh hadaytanaa wa hab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal aziizul hakiim amiin yaa rabbal aalamiin am yaquluuna nahnu jamiicun muntasir sayuhzamul jamcu wa yuwalluuna dubur بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر